mbokk yi ñuy seetaan ñu ngi leen di nuyu ñu toog ak nag ki nga xam ne moom mooy Serigne Cheikh Ahmed Al Amine do nekk njaboot ci ki nga xam ne mooy Serigne Abdoul Aziz Sy euh, Al amin nekk aussi président cadre unitaire de l'islam Sénégal di kuréel goo nga moo dajale euh, këru diine yi nga xam ñoo nekk ci Sénégal euh, Serigne bi Dakaractu mu ngi lay nuyu. asalaamaaleykum wa rahmatullah wa ñu ngi leen di fay di leen dalal jàmm. di leen ñaanal yàlla barkeel seen liggéey te seen sit bi eh, egg fu weesu seen jort. waaw sëriñ bi ñu gis eh, taxawaay bi nga xam ni yéen a ngi koy taxaw ci Sénégal ci juboole kër diine yi waaye aussi juboole sénégalais ak seen bopp eh, ñu gis fan yi nag ni xëy na yëf xëy na mu ngi fruit mu ngi commencé wadd ndax gis nañ ñi ñi ñu xulawoon ñu ngi juboo mën nañu wax réconciliation Euh, Abdoulaye Wade wala retrouvaille Abdoulaye Wade ak Macky Sall. Serigne Mountakha dox ci ay jéego yu Sénégal yépp gis. démb ñu gis ki nga xam ni moom mooy xalifa Sall génn kaso. nga nekk cadre unitaire lan nga ci xalaat. waaw dama leen di gërëm ci ñëw bi ngeen fi ñëw ak question bi ndax euh, Sénégal dafa toll foo xamante ni euh, dafa jël benn tournant tournant bu bu am solo ci wàllu. dalal xol yi dalal aussi xel yi euh, lii nga xamante ni am na fii fan yi ci gannaaw donte sax ñun duñu dox ci wàllu euh, politique maanaam suñu association bi euh, li ko tax a jóg du wàllu politique ni ko Sénégal yi dégg muy politique politicienne waaye bu fekkee ni am na ay tubaab naa dénouement heureux ci ay situation yoo xamante ni mënoon na indi ay jafe-jafe te li ko sabab jóge ci këru yàlla muy euh, masjid bi nga xamante ni moom lañ doon inauguré fan yi ci gannaaw muy Masaalikul Jinaan suñu wayjur suñu bàyyi c'est c'est Muntaqa Bachir Mbacké eh, jóge ca Touba ñëw ba fii ngir euh, jëmmal bés boobu ba xew-xew yu am solo yu am fa ah ñun dañ ngi def lu rafetlu ko ndax booy xool cadre unitaire de l'islam au Sénégal Euh, wax nga ko sànq li ko tax a jóg mooy euh, gën a renforcer lien yi nga xamante ni wala boo gën a lëkkale këru diine yi yi nekk ci Sénégal donte euh, léeg-léeg mu am ay jafe-jafe ndax li ñuy olofi naan bëñ ak làmmiñ ñoo ànd waaye léeg-léeg bëñ matt làmmiñ waaye dañuy fàttali toujours nit ñi rek ndax combat la boo xamante ne du jeex combat boo xamante ne da nga koy mën a bés bu nekk ndax léeg-léeg da nga am ñaari eh, noon yoo xamante ni moom nga nekk jànkonteel benn bi mooy eh, ñàkk xam eh, benn bi mooy ñàkk ràññee ñàkk xam bi léeg-léeg ñàkk réere mbindu mag ñi wala nekkinu mag ñi mooy tax lu ci ëpp ñu nekk ci ay jafe-jafe wala ku nekk di Eh, di kañ sa sa mbër mel nii dañu nekk ci benn arène alors que mag ñi loolu tax leen woon a jóg li leen tax a jóg mooy rafetal eh, taaral diine ndax eh, tasawuf bi ñu koy wax ihsaan moo tax gën a rafetal diine ji fa tabaarakalla kon mag ñi nekkoon ci ay arène taxu leen a jóg waaye tabax ay ay nit ba ñu mën a dëgëral seen diine sax ci seen diine rafetal seen nekkin ci àdduna eh, yéegal it seen ruux ba foo xamante ni eh, seytaan du ko mën a du ko mën a dab donc tey dañuy rafetlu taxawaayu suñu wayjur seen Cheikh Mountakha nga xamante ni réconcilié na ay ay nitu politique ñoo xamante ni nekkoon nañ ci ay jafe-jafe ah te loolu yi day indi daal ci réew mi te réew mi soxla na ko ndax eh, fitna moom kenn mënu ko dañ koo war a moytu ah euh, te lépp loo xamante ni dafay indi ay jafe-jafe ci réew nit dañ ko war a moytu yàlla moo ñu ko moo ñu ko moo ñu ko moo ñu ko sant ci xadis sant ñu ko ci ci ci ay alquran fa tabarakallah kon nag euh, loolu situation boo xam ne bu ñu rafetlu la ah, mu amaat it suñu dénouement bu heure ci fan yi ci gannaaw démb rek muy suñu mag suñu xarit euh, Khalifa Ababacar Sall yàlla def aussi jafe-jafe yi mu nekkoon ah yàlla génne ko ci loolu it mu nekk benn dénouement bu heureux yi naan wala tubaab bi naan l'occasion fait le larron mu tombé wayal waral ay gaaf ah euh, mu tombé it ci euh, ñu ñu ñu ñu jaf mu am

Euh, ñun duñu ay activiste damay faral di wax ni euh, activiste moom mooy euh, xëbalaate ngir mën a am li mu am ñun li ay régulateur lañu maanaam bu situation conflictuelle amee wala situation même bu fekkee ne situation bu injuste la li nga mën mooy nga dox ci sa waar parce que loolu mooy sa cër ci réew mi damay wax ni kuy yàq kuy kuy defar du yàq bu fekkee ni da nga bëgg bu ñëpp jaaxle wëlbatiku ci yow loolu nga nar a euh, bëgg a yàq damay damay damay wax ni ah nit ci ñu am recours te kon euh, donte suñu way jur dox na ci tam waxoon ci benn waxtaan bu mosoon def sama ni ñun héritage la ci ñun euh, tant que suñu mag jooju suñu xarit boobu mi ngi woon ci kaso bi ñun du ñu am lu ñu neex ci suñu xol ndax sëriñ bi daf ñu daf daf daf ci daf ci ay jéego dox ci ay jéego mu nekkoon ñun héritage bi sëriñ Abdou Aziz Al Amine ñu continué woon di ci dox liñ ci mën ah, ba tey. yàlla def euh, njiitu réew mi ah, def li gën ci réew mi mooy am décrispation ndax euh, xel yi gën a dal ndax xol yi gën a dal loolu tamit dañ koy dañ koy rafetlu. kon kon sëriñ bi mën nañu wax ni euh, li nga xam ni bu fekkee ni li jëm ci wàllum libération xalifa Sall soulagement la ci yéen ñi nga xam ni yéen yore tey héritage yu sëriñ Abdoul Aziz bu mag ndax boo amee sa way mu am lu mu mbëbët ci àdduna dem ba yàlla jële ko fi la mu mébétoon jotu ko matale ñun dañuy wax ni eh, ci recommandation yi nga xamante ni donte waxu ko ci làmmiñ man pour man recommandation lay boo xam ne c'est implicite boo xamante ni waroon nañ ko mën a eh, porter eh, entre guillemets le combat ba mu am li nga xamante ni moom mooy dénouement bi mu am tey waaye yàlla jaarale ko aussi ci ci ci ci ci période boo xamante ni dafa propice ci décrispation jëla jaaree ko ci suñu bàyyi moom laa wax léegi Serigne Mountakha Mbacké ndax ñu xam nañ ni Sénégal am na lu ñu rusé kilifa diine yi am na lu ñu rusé diine ji globalement donc bu fekkee ni kilifa diine jóg na wax ci mbir wala mu dox ci mbir wala sax donc mën na cee bañ a wax sax waaye ñu rusé ko ko mu jaare ko ci moom dañ naan alhamdulilah walilahi hamd Ah, wax une situation bu en tant que mais aussi en tant que sénégalais tout court ndax euh, sénégalais la citoyen bu am cër ci am am solo am politique euh, justice ah, c'est un dénouement heureux aussi euh, le président Macky Sall euh, donte dëgëroon na euh, tuuti ci début ba bon yàlla def na foog naa am na il est revenu à de meilleurs sentiments xam ni aussi euh, Khalifa demande sociale la woon cest que sa libération demoon dama nekk sax demande sociale ndax koo xamante ni bi nga ko tëjee bés bu ne nit jóg jël micro mu wax ne na ko bàyyi muy opposition comme muy bokk ci état ah, président je pense que dafa dafay dina dem ba xam ni demande sociale boobu aussi il faut nous satisfaire quoi. donc je pense que c'est un dénouement heureux pour tout le monde. Euh, Benen bi muy wax nañ ko léegi ñu gis ni euh, aljuma ak léegi euh, ñu ngi gis ni kilifa diine yi ñu ngi gën a fës ci wàllum facilité ay diggante est-ce que dañu war a jàpp ni tey ñi nga xam ne yéen ñi nga xam ne yéen a nekk ci këru diine yi. dafa am benen place bu bes bu nga xamni yeen koy occuper si waxuma rek si ñongal digënté ñi nga xamni moy politiciens mais aussi fexé ba sénégalais ci seen biir ñu nekk ci jamm yeenenté jamm wa kilifa diine man dama wax toujours dafa am ñaari façon kilifa diine au Sénégal ki nga xamanteni dafa ni man du dugg ci politique damay garder sama sama statut de régulateur. Euh, ak ki nga xamanteni da nan man damay engager politiquement ngir mën a soppi arène politique bi jëmale ko ci anam bu gën a gën a rafet euh, ku ci nekk am nga say raison et puis benn bi ça n'empêche par l'autre aussi mën nga nekk ci ci ci ci ñaari am ñoo xamante yaaka dañ ni gëm nañ ni que mën nga nekk régulateur mën nga nekk régulateur mais aussi am sa position politique euh, Sénégal dëkk la boo xamante ni euh, li sëñ Cheikh di wax naan il faut il faut savoir tuer l'opinion l'opinion publique Euh, boo nekkul wax ko ko sax boo nekkul acteur da ngay nekk otage euh, te bu fekkee da danga bëgg tënk kilifa diine bi ci euh, nekk ci benn ni ko sama benn mbokk di waxee Seydina Issa Laye moo koy faral di wax nee na ñu tënk la ci tudd doom ak jullee néew ñaar ñu ngi koy defee ñëpp kenn amul ci responsabilité Euh, loolu du du taxawaayu diine pour man du taxawaayu kilifa diine kilifa diine dafa war a vivre ci époque euh, bu waree liggéey war na mu dem liggéey su waree jaamu ji yàlla mu ngi jaamu ji yàlla mais aussi bu waree delluwaat ci li nga xamante ne ay héritage ay maamam la mu delluwaat ci héritage ndax Sénégal loolu mooy ci qu'on le dise ou pas euh, religion dafa représenter part bu importante ci ci ci ci vie wu bi à li muy sax damay wax ni.

par contre il faut reconnaître qu'il y a un danger danger c'est euh, que position pervertir position pervertir rôle en tant que politique euh, pour m'expliquer les gens qui comportement politique euh, des position euh, statut religieux bi et lolu day nasaxal euh, euh, position religieuse, du sax ben ben benn benn ci boppam looy lay nasaxal mais day nasaxal position religieuse, lolu ngay tax gis souvent ñuy saaga sëriñ si waaw gis nga serigne si ni ñu gis nga serigne alors que bon serigne bi nit la boo xamante ne mën na def erreur bon il faut que aussi nit ñi mën a façon serigne ak serigne Euh, man sax bëgguma turu tour tour turu sëriñ dañu am benn benn benn benn statut de religieux boo xamante ni euh, sur le statut social san laay wax boo xamante ni aada moo ko joxe euh, statut social boobu dañ koy war a assumer donte parfois du jote dara sax diine ji Euh, euh, euh, ceddo yi amé won sen ay dom ba yi tay ñu nek ay ancien buur wala yooyu Sénégal dañu jël ci ah, diiné comme ni Sey Xayma waxee naan aada mo fi mo fi mën toujours diiné mais loolu dañ koy assumer aussi mënuñu ci dara mënoo ko ci ci société bi la bok lég léeg ñu considéré nit ko xamante comme un un un un religieux ko xamante peut-être il n'a rien de d'un religieux mais aada mo tax ñu considéré ko noonu donc yooyu indi day indi ay jafe-jafe bu amee benn comportement tey bu boo xamante ni dëppoowul ak diine nit ci dañ ciy profité pour xalab xalab diine donc loolu c' est un c' est une situation boo xamante ni euh, c' est conflictuel par day indi ay situation conflictuelle te day euh, nasaxal euh, relation même entre les religieux et les les laïcs ñu moom mooy wooye les laïcs souvent dama leen tooñ leen wooye les ñi nga xamante ni confrérie confrérie laïque la ñu bokk kon nag euh, je pense que tay war nañu xolat euh man sa damay wax toujours ni dañu wara xol nak nag mëna institutionnaliser parce que lool moy jafé jafé bi tay doto xam kan moy kan lañu woy wooyee sëriñ ak kan lañu woy dul sëriñ donc laaj na tay état bi réfléchir ak bien entendu la société civile ban statut lañu wara jox le religieux euh, day dem ba tay position bi nit di jël daf koy jël en tant que religieux loolu daf koy jël en tant que politique ay amalgame yu bari daf ci am ba tey doo xam exactement naka nga mën a considérer euh, euh, le religieux dans la société sénégalaise tel que nous le concevons wala tel que sax mag ñi seen taxawaay bi mu amoon bu njëkk ci biir société bi. Mm-hmm. waaw sëriñ bi kon mu mel ni euh, défi bëri na yaa ngi koy wax léegi statut religieux bi war nañ si réfléchir parce que parfois nit wax doo xam ban casquette la waxee. mais aussi yéen ngeen di def ay effort yu bëri ci juboole këru diine yu Sénégal mais mu mel ni effort yooyu ngeen di def njaboot yooyu njaboot yi topp ñu topp ñu rythme boobu parce que il suffit juste nga dugg ci internet réseaux sociaux yi ngeen gis gis yenn discussion yi entre kii tiijaan la kii murit la kii laayen la kii xaadar la mais da nga naan est-ce que kon ñii li waa cadre unitaire di def wala ñeneen di ko def ngir boole këru diine yi est-ce que ñoom ñu ngi ñu ngi suivre rythme boobu. waaw loolu moom question bu doy waar la léeg-léeg sax da ngay dama ko nëbb da ngay décourager ci eh, ñu bari dañ may interpeller mais comment naka ngeen di def sax ci biir cadre bi pour mën a eh, liggéey liggéey waaw seen biir liggéey liggéey bu normal du ma la ko nëbb léeg-léeg mu am ay jafe-jafe yu tar ci biir cadre bi ci diggante communauté yi mais aussi man loolu mooy charme bi Sénégal euh, charme am mooy confrontation entre guillemets bi am ci diggante communauté religieuse mais confrontation boo xamante ne du egg mukk ci basculement c'est-à-dire que nous basculer qui ci ci qui c'est incontrôlable euh, c'est vrai euh, il faut que nous nous nous nous nous suñu faire. Si nous basculement nous surtout euh, ba am nañ ay kilifa leen di mais loolu gis naa ni commencer di di di di te suñu demee ba gisatuñu kilifa boo xamante ni bu ne mbir mi eggee ci situation bu bu bu jafee mu ne nit ñi dal leen ñëpp dal mën nañu indi basculement bi ñuy bi ñuy bañ il faut le reconnaître euh, Sénégal surtout euh, confréries yi lu ci ëpp wala boog communauté religieuse yi ci ëpp nañ ko wax te tëddee ci maslaxa rek lañ nekk Euh, mais ku nekk euh, gëm nga léegi am nga gëm gëm goo xamante ni te loolu ci ñàkk ci ñàkk xam la tegu de am nga gëm ngëm goo xamante ni ci ci ci njaboot ci laay wax ne euh, d'abord yaa fi gën lee yoon maanaam yaa fi gën lee confrère yi sa sëriñ moo nekk ci bopp kaw sëriñ yëpp te léeg-léeg nga xalaat ni ñeneen ñi nekkuñ ci dara loolu mooy indi jafe-jafe ci réew mi bu fekkee ni yow yaakaar nga ni sa sëriñ moo gën ci sëriñ si sa yoon moo gën ci yoon yi mais bul nasaxal keneen ki ci la mu ne euh, moom a gën a signifié wul ne kee ca la mu ne nekk dara ne da nekkul ca dara yow nekkal ca la nga gëm mais bàyyi ci keneen ke ca la mu gëm je pense que loolu mooy indi jafe-jafe yu ëpp ci diggante communauté religieuse euh, du ma ko nëbb léegi-léeg nga am un sentiment d'échec ci biir cadre unitaire parce que da ngay gis ne que yow li ngay xeex bés bu nekk day am toujours benn phénomène wala benn épiphénomène bu ñëw faagaagal ci lu bari euh, ci gannaaw amoon na benn événement bu fi amoon euh, vraiment mu indi ay jafe-jafe chaque trois mois wala chaque cycle de six mois da ngay gis benn événement bu ñëw mais yàq lu bari ci loo xamante ne tabaxoon nañ ko ci euh, diggante euh, communauté religieuse yi ngir gën koo mën a rataxal mais ñun dañuy wax ni que euh, sacerdoce la wala défi la boo xamante ne dañ ko a relever il faut mu am ku ñu porter combat boobu bu amee sëñ Babacar daa wax naa wala sëñ Hadj Malick bu nit nekkee ngir yàq lu mu lu mu ko jaral yow na na na na la gënoon lu ko ëpp ngir defar donc ñun ci loolu lañu loolu la ñuy dox le cadre unitaire tey euh, jafe-jafe yi ñuy am yëpp ci diggante communauté yi jóge ci njaboot yi dina fexe ba ñi nga xamante ñooy kilifa yi ŋànk këru diine yi duñu dugg ci loolu wala boog dinañ leen sensibiliser ba ñu mën di téye njaboot yi wala bu fekkee njaboot yi dañoo nar a euh, mbartal wala ñu ñu exagérer ci benn mbir dina am kilifa bu jóg ngir ngir ngir atténuer loolu maa ngi ñun dañ ciy dox chaque jour Euh, act bi ñu mujjee posé mooy bi ñu ubbi jumaa ji nga gis communauté yëpp booloo dem taxaw fa euh, rafetlu euh, œuvre boobu wane ni lii ndamum islaam la donc ndax am na yoo xamante ni mais aussi ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko ŋànk war nañu tamit ni ñun lii ñoo bokk lii kenn taxawul ne daan ne ah jumaa ji kat jumaa sëñ sëñ Tuubaa la wala kenn kenn taxaw ndax gis nga def nañ fi benn xadaratul jumaa ñu rafetlu ko lool ay ay symbole la symbole la pour les bu ñu et puis ay ay signal fort la yu ñuy joxe ci njaboot yi ay signal fort yu ñuy joxe même pour bitim réew wane ni que Sénégal donte mën nañu am diversité ci wàllu euh, diine mën nañu am diversité ci wàllu ngëm-ngëm mais essence bi wala bok li nga xamanteni moy ci islam bi du fi jóge mukk bu fekkee ci diine islam la ñun ñep muhammad sallallahu alayhi wasallam lañu gëm yàlla lañu gëm muhammad moy mom lay moo koy moom la mom moy mom moy mom moy rasulullah sallallahu alayhi wasallam ah te ci islam diine mi du fi jóge euh parfois nak mu am ay dérive surtout yi ma koy gis ma koy gis souvent ci njabooti mais man damay wax ni tant que dérive jógewul ci kilifa

dérive yooyu ñoom lañuy ñuy di ko xeex xeex bi nag ci ci ci plusieurs façons la d'abord ci gën a <clears throat> yee nit ñi ci seen diine gën a yee nit ñi ci seen tarixa ndax turuq suufi yi ngay gis yëpp booy xool tamit base bi benn euh, ñoom ñëpp euh, li leen tax a jóg mag ñi daanuñu réeroo ci dara léeg lee nag mu am ay dérive yu ci am yoo xamante ni ah ñàkk xam lay doon ñàkk xam ce ce ce sa charia ñàkk xam sa sunna mais ñàkk xam aussi ce ce ce base tariqa donc yooyu su amé <clears throat> dañuy bëgg di di nit ñi di ci di ci di ci bàyyi xel ba euh, ñun tamit jéego buñ ci mëna def ñu def ko ñi ngi génne ay ah, manuel à la base pour mëna duggal dugal euh, njàngale mag ñi ñu koy jàng ba ci ba ci école yi parce que aussi loolu dafa am importance il faut que ñu xam ne nit ñi comportement bi ñu am tey li koy waral lu ci ëpp mooy euh, dañ ko tàggatu dañ leen ko tàggatu soit ci da école ba wala ci daara ci selon euh, système scolaire bi ñu bokk te bu ñu leen ko tàggatee jël mbindum mag ñi parce que tey boo xool mbindum mag ñi lan la ñuy jàngale euh, amul benn référence boo xamante ni référence locale tey boo nekkee Euh, euh, primaire ay fable de la fontaine lañ lay jàngale le et <laughs> bon classe ñu commencé la Albert Camus ay cor ay Corneille ak ñooñu nga dem ba euh, université ñu lay ay Marx bon alors que c'est le même principe mais c'est Hadji même bind na ci wala wala keneen ak keneen ay références locales sëñ Moussa Camara bind na ci wala euh, en tout cas ay références yoo xamante ni ci réew mi lañ bokk te yóbbu lu ñu dara ñooñu nga xamante ni ñooy ñooy bind donc il faut que ñu tàggataat njaboot yi ci njàngalu mag ñi ñu xam ni nag ñi euh, euh, xuloo wala boo ŋaayoo wala xiiroo wala wala compétition ci ci taru xuleen a jóg ñoom kay seen compétition lan la woon ci egg ci yàlla waaye compétition maa la gën a euh, baax tariqa wala maa la gën a déedéet ñoom mosuñu mosuñu am compétition ci loolu donc il faut que donc ñun euh, suñu responsabilité tey en tant que religieux ñu gën ci yee njaboot yi te bu ñu gisee tamit ku am comportement boo xamante ni dëppoowul ak lii nga xamante ni moom mooy cëslaayu tasawuf wala sax cëslaayu diine parce que léeg-léeg gis koo xam ne tamit dafay woote contre tasawuf bon yooyu tamit ay ay dérive la yoo xamante ni parfois doo ko mën a doo ko mën a doo ko mën duñ ko duñ ko bàyyi mu jàll gis naa am na suñu ay mbokk yoo xamante ni ñu ngi yore benn association bu boo xamante ni day servir le soufisme suñu maam maam Cheikh Mbacke jiite ko gis naa ni que moom daf ciy def xeex yu yu yu yu yu yu yu yu am solo pour défendre le soufisme mais ñun nekkuñu ci sax défendre benn benn courant au au détriment d'un autre courant ñun li ñu wax mooy

l'État aussi doit jouer un rôle primordial dans la régulation euh, religieuse parce que il faut que les religieux soient régulés L'État doit assurer un certain équilibre dans la gestion des des communautés euh, et puis le moins le de base stabilité ou même réew mi euh, tey bu fekkee ni que dafa am benn communauté bu jóg dal ci beneen communauté wala mu am benn euh, individu bu bokk ci benn commune dal ci benn communauté il relève de la responsabilité de l'État de s'autosaisir pour mën a neutraliser euh, phénomène wala épiphénomène parce que souvent dañuy yaakaar ni du loo xamante ni dafay ay épiphénomène la day day jàll mais day créer ay frustration et accumulation frustration mën dem explosion et ça il faut que l'État y veille Il ne euh, euh dégager en touche faut pas que l'État dégage en touche euh, ci une situation à maintenir sa responsabilité en tant que régulateur sa responsabilité en tant que garant de la sécurité nationale

est-ce que nous parce que aussi euh, peut-être que nous fait def allusion Ousmane Ba bi nga xamni mu ngi Gabon di saga euh, sunu mais aussi mom ci explication yi mu joxe dafa ne dañuy saga momit muy euh, Mohammed Ibn Abdel Wahab bu Arabie Saoudite moy kilifaam ak ñu melni Ibn Taymiya la gañi ni saga mom muy saga seeni mag est-ce que aussi état warul équilibré ñom bu ni yeen nangu ñu saga seeni mag tamit bu waaw man d'accord ma kenn di saaga magu kenn man loolu mooy sama position ndax saaga d'abord moo moo moo moo jaarwul ci ay ñoo xamante ni ñu ñu ay ay frère lañu ndax tey innamal mu'minuuna ixwa man suma suma suma frère su ko saaga sama bopp laa saaga donc tey mënu nekk ci mënu nekk ci ci situation boo xamante ni damay damay damay défendre benn courant au détriment d'un autre dafa am ñoo xamante ni léeg-léeg euh, dañuy basé wu ci ay histoire wala ñu basé wu ci ay euh, idéologie ngir mën a euh, màbbal idéologie jàmbur loolu du fi jóg sax dama wax ni tànk mi ngi jóge ci ay njaboot man du ma du ma inquiété donte war nañ ko xool naka lañ koy mën a euh, am teg ci rempart ba du ba du law mais lii am jafe-jafe souvent te bu fekkee njaboot moo ko def dañ ko war a teg ci yoon ni ko njaboot di defee ñu teg ko ci yoon noonu laa bëggee bu ko kilifa defee ñu teg ko ci yoon ndax boobu moo gën a garaaw euh, bu fekkee ni que euh, ku mel nii bu bëgguma tudd tur waaye xam ki ñu wax tur nga tudd loolu mu nekk Gabon Ousmane Ba mm-hmm. waaw bu fekkee ni que Ousmane Ba nekk na te Gabon واحد من أقصد النون كان تكلف إن حمل تني تري من لين لين حمل من سيد توبا ولا سيد حاج ماني نخي سوبا بين كلفة دينة واحد من أقصد النون تي تي تي بتي بين كلفة دينة مي pour من ils sont dans la même situation ni ni ni état varé dal ci ci ci ci ci euh euh ki nga xamanteni njabot la dal ci kilifa non la état war assurer assurer euh, en tout cas la est publique ngir bu fekkee ni kilifa moo wax mu mu mu mu mu def ci la ci war euh, république lañ nekk maintenant il faut que ñu xamni euh bu fekkee ni nit dafa nekk ci ben situation de de de de de provocation wala mu nekk ci situation boo xamante euh, da fay da fay de promotion individuelle ça l'État doit sévir man donc je ne suis pas dans une logique de de de de de discrimination positive en faveur d'une communauté non nekkuma ci loolu man en tout cas li nga xam ne suñu en tant que cadre unitaire L'État l'État état jouer son rôle en sa qualité de régulateur mais en sa qualité de de de garant de la sécurité publique le niveau de frustration parfois bu atteindre yenn niveau benn yenn yenn dimension yi day indil jafe-jafe sax état am na foo xamante ne bu fa frustration bi toll même kilifa diine yi dootuñu am possibilité euh, euh, euh, téye téye njaboot yi ndax aussi pas-pas dafa sori ci ci xolu ci xolu xolu doomu aadama dafa sori surtout nag bu fekkee ni que jullit la loo ci laal rek da ngay da ngay indi ay ay ay jafe-jafe ci société bi. waaw xam naa sëriñ bi. Euh, dañuy yemale foofu waxtaan bi euh, di la jaajëfal. waaw ñu ngi leen di gërëm aussi yéen tamit ci seen déplacement di ñaan yàlla wàccee jàmm ci réew mi yàlla rataxal diggante yi ci communauté yi yàlla tàppe xol yi ni ko suñu maam Abdou Aziz daan waxee euh, di ñaanal suñu kilifa diine yi ci réew mi yàlla yokk seen fan guddal seen fan te li ñu namm ci njaboot yëpp yàlla ko yàlla moo tënk ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa